bëggante yi da leen di jaral ba pare. Mhm. bëgg nga day sori lool ñu di ca ñaanlu. Mhm. di ca def ay sarax di ca def lépp. takk seen sër ba mu dëgër bañ nag ba sonn. Mhm. waaye bañ bi semaine lay yam su dee weer ëpp na su dee trois mois ëpp na waaye nag bu ñu demaatee ba jàkkaarloo xale ba day nangu. sëy bu fi tas tey looloo ko tas góor ñi yërëmatuñu benn xale nag xale yi kenn amatul ndaw. ñu baree ngi fiy takk ay nit di leen sagal sàng leen ba daanu sutura bu bruit bi jógee dañ leen di romb dem ca yeneen i xale nag tëdduñu te it réew mi daa tas xale yi dañuy fabriquer ndaw dem nañ ba dañ leen di ñaw sax pour ñuy xat ngir di fabriquer ndaw waaye góor day xam lan mooy ndaw ci xale su yegsee kamu xam ak ki xat ak ki xatu xale bu góor da koy xam ndax man daf ma koy wax tiim naa sama jabar xam naa ne du jànq li ma ko may bari na maa ngi koy xaar diiru un an deux ans dinaa ko may bu ma juralee juróomi doom dinaa ko fas ndax man damay wër ndaw ci jigéen te ma mu am ndaw xat na nag da koo fabriqué nag réew mi nasaraan bi da cee dugg tey xale yi na leen a jaral de seen fanweeri junni lañ yor seen cinq cent mille seen deux cent mille extérieur nga sori danañ ko teg ci base dinañ ñëw ba xat jommi waaye nag <laughs> lu dagg ak lu ñu tappale ku ne xam na ko te damay toog ak ay kilifa loolu ñu di ko ñaxtu bay am naqaru xool naan su ma gessoo ci lal bi seen ko duma ko bëgg gis ndax keneen jiitu na ma ci ah bon it may naa ko ay millions jox naa ko ay 4-4 takkal naa ko ay or sama xool dafa jeex taat moo tax import importance su téye sa bopp téye sa bopp loolooy importance bi uh-huh. loolooy valeur li loolooy qualité bi ndax góor da koy xool ci nit mm-hmm. léeg-léeg jëkkër xool la ba bëgg laa jéggi geesu xool ne moom rek moo la xam mu hmm. daw ba bëgg terrain ji hmm. taal otoom ba mu nekk ko baa mu dox tànkam xel ma dellu siwaat mu tourné waat xam ne yow mii rek yaa ko muñal hmm. mu toog ñëw bala mu naroon def à cause de la nga xaar ak ndaw gi nga ko jox ndaw valeur la ci jigéen xale yi dañ koo bagarde sandis sax ñu tëdd sandis bi ñu tëdd weccit bu sew ñu tëdd kaat kaat ñu tëdd lii de yi xale dañ koy def dem ñëwaat tëdd ba roode ñëw toog ci biir réew mi ñu ngi toj dëkk bi te naan la bu bal tàkk fital du jóg bu ma kenn dégg bu ma kenn yëg ak booleeg di la takk nag ci sëriñ xam nga gàllaaj am na waaye di nga takk mbër mu toj su tojee génn ba day bëri bàyyi xale yi fi ñibbi seen kër ndey yépp la cay ñuul bu la ko waaja waxoon nga jomme amuñu ndaw roode nañ ca roode jeex. roode dañuy roode. roode nañ ba roode jeex gis nañ góor gu ne dugg nañ fu ne. ñun dañoo ñoo sokke ñoo raw paak. te ñoo gën bi yëpp ñoo koy wax waaye tey dañoo tey dañoo sokke ñoo xam ne ay borom valeur lañ fii ci dëkk bi dañoo bëgg ndaw. ñoom ndaw ci boppam da leen di daaneel danoo bëgg ndaw te boo dee jigéenu ndaw jaral nga leen lu ne lu tax ñu di ci teg male. lu tax ñu di ci ay millions. lu tax ñu di la jox ca mm. euh, loo xam ne sa yaay bu génnee beeg say mm-hmm. bàjjen beeg famille beeg beeg loolu la koy waral mooy gars yi dañoo bëgg ndaw nag waaye xale yi dinañ la tàggu ne la maa ngi seeti ji sama yaay wala maa ngi dem kees maa ngi ñëw dara jee yonant bi ñu ngi ci diggante mbuur gi ak Maroc France dañ koy def ñetti fan duggaat ci dëkk bi boolew ñu dara ak ñëwee dañ lay liggéey ba nga ne ngodd ba pare yamatuñ ci de valeur boo leen laaj la ko jox ak booleeg di la may riir xale yii ma gis léegi waratuñu jom sa yaay de bu sonnee ci sa kër baay daj fa keteme mm. macc fa kaani macc fa lingom mm. ngay doomi gor di doomi nit ku baax soo gëstoo war ngaa wuti ji ndaw mm. ndax boo tëddee day bég te day kontaan say fami baay ñëw taxaw mu siggi ay fameem ñëw taxaw mu siggi koñ bi génn dëkkandoo yi génn xat yi génn mu siggi waaye xale yi si li tuñ kenn xam nga lu tax concours 4 x bi ci réew mi toj na àdduna te lu koy joxe xam nga lu koy joxe tegante bëti kii dalay lay ëpp wërsëg gën laa rafet lool gën laa jekk yam nga wëlbati ku ne kii gënuma fi mu jaar ba am lii dama koy am soo xamul circuit bi xamoo yoon bi dangay taxaw ci tali bi mbir mi yoon la man ngay sangu ba set di diwu seet sa ku mel ni ajar tudda ba booy sa yaram saf-saf ñu di la may tëddoo tëdd oh. ñi ndaw a ngi fii ci réew mi de am na fi mag yoo xam ne ba léegi ñu ngi toog ak seeni ndaw hmm. dara jey yonentu yàlla Muhammad ñu ngi xaar góor gu baax ak ku yàlla baaxal ak góor gu yiw daal di ko koy jox waaye nag góor ñi dinaa leen balaame tuuti ñoo war a dimbali xale yi hmm. ñoo war a dimbali jeunesse bi seen bopp yi amul dara xale yi amuñu cerveau bu nu la bëggee duñu xool duñu dégg du gis hmm. yaa leen di gënal sax seen papa bàyyi seen bàyyi jàpp la moo gën ndax mbëggeel dafa sori ay sentiment la yu suway na ko situation rek la dégg nga barki yonent bi